bu ñu paree seen liggéey ci biir permanence APR la ñu dem dugg j'ai les images. ah oui. oui je pèse mes mots ku ko ma attaqué ñu dem. li ngay ma lay wax lu leer laa la wax. j'ai des images. te ñoom ñu taxaw dindi ko mettre ne ñu ay nervi ñooñu. j'ai attention su leen neexee ñu gis gisuñu jant bi. Eh. quand on leur montre le ciel ñu ni <laughs> sama baaraam bi. Hmm. dama ne j'ai les images filmées. bu ñu paree dugg ci pick-up bi dugg ci biir permanence bi c'est écrit permanence ñuy dugg ñoom ñëpp pour ñu daje. permanence APR moom laa gën a des images très claires on a vu d'autres hein des véhicules xam ni ça appartient au ministère de l'éducation nationale wala mm. l'enseignement supérieur wala. il a démontré on a tout dëkk bii lañ dëkk. Mm. kooku li nga doon bañ daaw nga koy jëf condamné ko di ko def man damay naan attention parce que loolu. ça s'appelle des tontons macoutes à la version Jolof Jolof. <laughs> mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui non non gis nga gis nga léegi dama bëgg a dama bëgg a je ne suis pas un donneur de leçons mais li may wax kenn ko dindi te du ma tooñ du ma wax lu ñaaw léegi condamné nga li amoon muy nervi yi mais avant nervi aussi am na lu fi amoon muy mars yaa ngi ko tudd léegi mu am manifestation mu dem ba am ay débordement ñu lakk ci ay këru jàmbur yàq ci aussi ay biens publics lépp loo xam ne yàq la il faut le condamner c'est pourquoi le code pénal xam naa da ci dugg sur les réformes lépp loo xam ne yàq la je condamne dama ne set loolu dama bëgg mu leer yaa ngay wax deux euh, cas de nervi loolu mars la woon février mars mais que ce qui s'est passé lors de la tournée du président de la République des deux tournées hmm. yoonu Kaffrine yoonu Fouta quand même il suffit de se mettre en rouge ou bien de dire je ne pas d'accord balaa président sax intervenir di calmer on te tabasse damay condamner le fait que le chef de l'État qui n'est plus un privé mais une institution GIGN war a jël affaire bi en main ñuy permettre ay privé di assurer sa sécurité di tabasser les gens des gendarmes di leen naan bu leen leen laal j'ai vu ces images aussi vous les avez vues. le président est là il voit qui a recruté ces gens. qu'on veut les amener aussi dans le recrutement de la gendarmerie démentir nañu loolu maître nee nañu du ñu ay nervi bu ñu sukkandikoo ci les proches collaborateurs du président de la République. je les gens disent que ce sont des militants am na ñoo xam sax dañu j'ai fait une émission avec mon frère Abdou mm-hmm. devant Pam Ngay ba ma sa nervi la ma non ñooñu c'est pas gis ko amul mais léegi kenn mënul wax ne amul des gens même sont sortis pour dire ce sont nos éléments mais dama ne boo nekkee un homme un militant un sympathisant mu mujj sax ñu recruter dans la gendarmerie parce que le projet est en cours ngay sol tenue gendarmerie alors que tu partisan mais des dégâts sont là. sur alors, la maître, la procédure maître yooyu ce sont des choses yoo xam ni man d'accord ma ci. alors te on sait pertinemment que c'est l'État c'est au niveau de la du président. maintenant maître euh, euh, bu weesoo politique bi parce que yow ak le président Macky Sall nee nga moom moo la ñëw gis la. ànd ak yow ci Macky 2012 ba ñu dem coalition Benno Bokk Yaakaar dem élection demaat élection présentement quelle est la nature de vos relations yow ak moom au-delà politique bi ak li ngeen seqoon yoon yéen ñaar. depuis ma jógee Dakar dem dikk ko. décès bi nga fi am yàggul et tout. oui c'est vrai que j'ai perdu mon épouse le avril dernier. perdre sa épouse du perdre sa yaay du perdre sa papa c'est pas la même chose. ki nga xam ni si ñi la gën a jege parce que tu es devenu un homme. le fait que jaale si wu ma ça m'a fait ni chaud ni froid. jaale si wu la le président de la république Macky Sall. pourtant ñu ngi dem di jaale ñeneen te man li ma ko defal ñooñu defaluñ ko man dama toogoon di xeex contre ñooñu. Hmm. pour que moom mu toog. on parlait de Khalifa Sall mais mu dem jàll ji. entre autres Khalifa c'est des frères entre autres. mu ne ñeneen ak ñeneen. du sax SMS jotoo sax SMS parce que d'habitude gis nañ président Macky Sall mu am ay décès yoo xam ni dañuy jékki-jékki rek mu jël benn temps. xam nga jàll du uniquement physique. voilà c'est ça amoo SMS amul dara. dama mhm. moom. am na SMS wala lan moo la métti. mais vous savez sama soxna bi ma perte c'était pas n'importe qui pour moom Mhm. c'est la raison pour laquelle depuis boobu kenn déggu ma c'est la première émission que je fais. Mhm. tout à fait. Mhm. loolu mooy wane du politique rek. c'est quoi ça te fait mal ni nga koy waxee nii. Euh, wax ak xol ça vous fait mal excusez-moi de vous dire. le président Roosevelt newoon na. la place du cœur d'un homme d'État c'est pas dans la poitrine c'est pas sa place dans le cerveau. il faut pas dama ne képp koo xam ni képp koo xam ni. il est rancunier envers Moussa Diop tu perdras. daa foog ne dafa rancunier envers vous. li tax lu qu'est-ce qui se passe man lan laa def dama tooñ wala dama wax dëgg li ma ànd nit il faut qu'on se dise la vérité avec les formes fii laa def émission devant vous trois le 24 août. je suis très précis dans ce que je dis. loolu tëj émission bi. da ngeen une dernière question ne ma moom nag sur l'histoire du troisième mandat. ma ne ko moom waxagul bu leen dugg ci di ci bopp ni di nettali ay géntam. tout mooy waxagul bàyyi leen ko ba mu wax. Mhm. mu dellu si les faux qu'on lui dit ceci cela peut-être même gisul film il tape. pour yow loolu la jàpp ne ko même pas mal parce que man am naa métier. pour yow loolu la jàpp ba tey ba tax relation yi. amul leneen gis nga le président ma Sall gis nga gis nga le président Macky Sall man kenn mënu ma wax loo xam ni euh, dana ma jaaxal. Hmm. en bon ou en moins bon parce que maa ngi moom démb la. Hmm. ba may ñëw Sénégal jëluma avion normal moo ma jël un dimanche dugal ma ci avion am indi ma fii. ne ma liggéeyal ma Sénégal nekkal à la disposition des Sénégalais. defe naa loolu def naa ko. man je ne travaillais pas pour un homme. bu la déggee mooy yéen ñaar c'est fini. dama ne voilà voilà bu la déggee parce que li nga fi wax ni yaa koy waxee ak xol. vous mën nañu xaar ëllëg. man je fais parler de mon ma tête. ba tey mais quand euh, am na loo ci loo ci. non mais nit la nit nga waaw ça veut dire que c'est fini. Mm-hmm. entre vous deux. de toute façon y a ces choses yoo xam ni. man su fekkee ne d' accord mu ci dama koy wax. faut jamais dire jamais ah. dama ne dama ne man su ma d' accord su dama koy wax man nguur ràngatiwuma. Mhm. alors démb laa doon yàlla moo ma ko jox kenn joxuma ko da koy jaar si loxo nit rek. Mhm. li ñu ma joxoon dem dikk coono la ma indil parce que je suis à la disposition des Sénégalais. Mhm. ñëpp xam nañu ko je travaille tous les jours samedi.